kilifteef melo la. waaw hmm. kilifteef du wax maa lay yilif du ma sa morom loolu ko dégg mu koy wax rek kilifteefam dafa manqué. dafa manqué kilifteef njaaga jëf lay doon. waaye li wér mboolem jigéen laa la wax buy liggéey ci biir wax ji am na loo xam ne aada la du lislaam am loo xamante ni gor saa yu waxee moroom goram ñuy ñaari jullit ñu doxal ba ci biir ki ci war mooy naa féq dëgg la dama laa fekk ngay liggéey ma ne la boo dee liggéey dinaa la jàppale ba nga dugg ci biir sëy bi ma ne la da ngay bàyyi liggéey bi da ngay ci kër gi lislaam nee na la bàyyi liggéey bi te toog ci kër gi tourné ni waa ji nag yow naa féq nga ndax li ngeen li ngeen waxante woon du loolu laay dëgg la ndax yonent bi dafa ni ayatul munaafiqi mandargay naafiq salaasa ñett la isa xadasa bu waxtaanee kazaba fen boobu waa ji moomu ko waaye wa isa waada bu diggee ax la fa uute lu ñu waxtaane woon la ñoom ñaar biñ ko waxtaanee mu ne ko dinaa la jàppale ñu doxal ba ci biir nda waaj ji ni ndaw si da ngay ba liggéey bi ndaw si par force day ba liggéey bi moo xam milliard lay fayeeku par weer moo xam waa ji day tëdd ci basang xaaral ma ñëw ah, maanaam for force day bàyyi liggéey bi par force bàyyi liggéey bi parce que l'islam jëkkër lay déglu ni ko yaay orienté soxna ndax dañ la kaa may li tax jëkkër ëpp doole bàyyi ak yaay bu jëkkër dee woon tey yaay du tënj mag du tënj jabaray tënj kon jabar am na doole ñaareel bi mooy bu do jabar génnee àdduna bàyyi teew yaay teew sëriñ teew lu nu mën a gërëm mën a gërëm ngërëmu jëkkër lan fay xaar kon jëkkër am na doole mais tey lu jigéen mën a liggéey poste bu mën a amee bu ko jëkkëram nee bàyyil mu bàyyi foofu nag mooy tànn muy tànn mooy tànn bàyyi liggéey bi toog bu tasee sëy bi it l'islam tegu ko daan ndax fa imsaakum bi maaruf bi ihsaanin mën na koo neex mu ni ko mënuma ba liggéey bi bu ma naree bàyyi liggéey bi na fi sëy bi yam am na ci plein droit parce que l'islam amul lum ko ci topp l'islam moom sapeur pompier la moom booy woote 18 doo fay waaye boo leen woowul du ñëw est-ce que yaa ngi dëgg la kon tey booy liggéey liggéey boo mën a amee ak lu mu la mën a jariñ donte sa jëkkër day fayeeku fukki dërëm yow ngay fayeeku milliard par weer mu tourné am na jigéen ñoo xam dañuy liggéey seen jëkkër démb avant ñu sëy nee na leen liggéey leen bi ñuy liggéey seen jëkkër remarqué ni ñii seen liggéey am na lu ci rax wóoluwu ko ak benn waay wala fa muy nekk heure bi muy wàcc daloo xelam l'islam ni la mu ne la dama bëgg nga arrêté liggéey bi l'islam nee na la arrêté liggéey bi te am lu yàlla financé ak école yu mu mën a jàngee ak luñ ko mën a fayal na na na jàngee école xaw nuñ ko xaw ma Normandie université Sorbonne ba ca ba ca ba ca France laa la wax ñëw mais bu jëkkër ne teggi teggi euh. di ñëw dañ li nga xamante ni daf fi rafet nekkoon ay aada ñu jël ko continuer ko li nga xamante ni dafa ñaawoon ñu teggi ko mm-hmm. loolu la waxoon waaw jamono toll foo xamante ni nii jamono moo toll foo xamante ni yaakaar naa ni dañu war a jël li rafet ñu dugalaat ko ci société bi parce que tey benn benn góor buy liggéey fi réew mi toll mm. kefe bu amul ndimbali yàlla doon patron bu mag mënul yor këram foog jigéen ñëw dugal loxoom am nu mu yore ay doomam pour mu am éducation bu décent mm-hmm. nekkul sax looy desal fi mu nekk nit ñu tollootuñu fu ñuy dencee lu ñu fajoo waaye yow miy góor ñëw dugg ba ci biir sëy bi mu génne ay jikko yoo xamante ne amu ko woon ak lu lislaam wax wax wax est-ce que kooku jaaduwul nag ñu teg ko mu toog mbokk yi toog ñu wax ak moom parce que la mu war a séq ak jabaram ak amu ci ustaas. téere bu ndaw bii laa lay ñu koy xalaat damay laaj ndax ak am na ci wala abu ci déedéet jëkkër a yilif déggoo man la bu doon fondé mooy yilif ba boo lay fekk ak yow danaan la benn yoon ci semaine bi ay tànd bi xaaral foofu dañ koy ñëw foofu naa fa foofu naa fa ñëw waaw tey awakan mii doon enseignante mhm. euh, ñu dóor ko fonction publique embauché ko mhm. bu jëkkër ji toogee ba xool xool xool xool ni bàyyil ci saasi même bu ko tegul fenn xoolal déggoo ma ne kaay ma wax bi gën a garaaw ci saa si day bàyyi imma bàyyiwul tànk bu mu jeego yàllaa ngi koy bindal bàkkaar ba fa muy liggéeyee waxam na fi bu yitukkun na wala tabarujna tabarujal jaahiliyatal uula du samay wax man damay nettali wax yàlla Adja yow tey boo nangu Mouhamed Mbaye mii man wax yàlla laay Mouhamed Mbaye bu takkoon sa doom waaw man logique laay waxee waaw ah, Mouhamed Mbaye bu takkoon sa doom sa doom di liggéey mu fekk muy liggéey Mouhamed doom jë ñëw Mouhamed may ni ko arrêté liggéey bi su waa yow yow yow mi yaay ji nooy def fu mu ko teg laa koy njëkk a laaj ba xam dama koy tënkal dama naan la neexuma pour mu liggéey ma ni la ku bàyyi dara moo dul sori man ni la yow moo moo sama doom juróo ko jëndoo man la nga jël sa doom xam nga man fi may waxee mhm. fi ma fi ma tooge tey jii di ko waxee mooy yaay bu yor njabootam ak fi réew mi toll du ci yërmande ngay dox de du ci yërmande sax de lu ci yërmande de mhm. mais dañoo toll foo xam ne dañu góor baax na jigéen baax na mhm. yow nga ñëw fekk ñu defar ba mu baax nga ñaan ñu may la mhm. nga war a téye ba mu rafet te la nga waxante ak moom doo ko def ndax kii nga ni arrêté liggéey bi doo ko jox salaire wala boo ko joxee benn weer ñaari weer da nga koy arrêté ak moom salaire nag waaw mi ngi noonu de foofu nag la jigéen sonne gis nga dañu dañu war a toogaat nag ñu waxtaan nag ci jigéen ñi ni leen jàppee parce que man dama jàpp ni dëgg la yàlla moo wax lépp ñun suñu xam-xam bariwul li ngeen wax yépp yàlla moo ko wax waaye seetaat leen place su jigéen ak yërmande bi yàlla teg jigéen ñu xoolaat ni ñuy torturé jigéen ñi ci biir société bi te nag ci Sénégal la ëppee dañuy xool ba heure bu leen neexee rek ñu génne benn aaya ni yàlla moo ko wax. Hmm? waaw waaw. bu leen arrangé dañuy génne benn aaya ni yàlla moo ko wax. Hmm. jigéen a ngi sonne Sénégal jigéen buy liggéey jàng ba sonn di liggéey di dimbali njabootam di def ci biir këram boo duggee ci kër léegi. dama lay jox benn benn exemple jigéen góor bu ñuy sëy ba mu yàgg ñu tàqalikoo góor ga buy génn ay yéreem lay génne. ndax du fa dugal dara jigéen ji moo am sag mooy jënd mooy meuble kër gi mooy def lépp ci dooleem ak ci ñaqam mooy yóbbu xale yi ñu jàngi mooy jënd yére ba jëndal jëkkëram yére jëkkër ji du fa def dara waa toog ba mu neex la nga fëgg say mbagg aj ko ni la arrêté liggéey bi ndax may sa kilifa yàlla lii la wax yàlla am na yeneen yi mu wax te indi woo ko ci biir kër gi Adja Absa hmm. Adja fa nga dugg neex na xam nga nil ne parfait hmm. ah. góor ñi kenn ku ne ak concept bi ngay doxee Euh, man sama soxla lu muy def njaga commerce du commerce lay def. waaw yenn saa yi damay toog fii mu ne ma allah Diallo yow laay xaar de dañoo war a dem asalem jëndi bagage fii laay wàcc ànd ak moom mu dem asalem ajaab sa yeneen yenn saa yi ñu daje asalem. Mhm. mu jënd ay bagage li mu àttanul maa koy jëlal man sama bopp dugalal ko sama oto sama gis-gis la ak jàpp naa ni lii muy def am na fu mu ko mën a fattal man it yàqalu ma sama. service gis naa xale yu jigéen yu góor xale yu jigéen yu góor. fekk seen jabar ca ba muy jàng. xëy na sax moo ngi ci euh, classe examen. wala ñu nekk ci stage. wala ñu nekk ci wutum liggéey. lañuy njëkk a wax moom mooy dama lay bàyyi nga yeggale sa jàng ba pare. ngay soog a sëy si. wala dinaa la bàyyi nga yeggale sa jàng ba pare ma soog laa jël. waaye dinañu fekk ñoom intéressé wu leen de. Mhm. xam nañu ni jamono jooju xale bu jigéen bi daa bëgg a jàng. Mhm. boo ko waxee mariage. mën na am mu ne la day yàq sama jàng danaa la damay jàng nga ne ko léegi dina nangu naa nga jàng ba pare dinaa la takk ñu taf ñu def takk ma bàyyi la nga jàng ba pare ma soog laa jël waaye dañuy nax xale bu jigéen ba dinañu fexe ba ëmbal ko ñàng ma yàqu nga xam ne bu pare dootul mën a dellu ca classe ci kër ga lay dem waaye attention nag de hmm. li ma la wax chaque jour fa inna allah laa yahdi kaydal xaa'iniin dafa am ñoo xam ni seen stratégie yëpp ci war la ñuy dox dëgg la dañuy xemmem bëggeewuñu xol waaye bët la ñuy bëggee kii bëggee bët nag lu ma am ci àdduna jot la moo ko ko gënal parce que sa forme koy daaneel jamono ji muy bëgg nag loo ko daf koy def mais njaga yàlla buur la bu mat boo xamante ni li ma lay wax ni la du détail ci jëf lay ànd ak nit ki mm-hmm. da ngay fekk jigéen ci benn élan muy daw nga jëlee ko ci élan ba fexe ngeen am doom gis nga góor lu mu ragal jigéen ragal jigéen ci ndoxaan mhm. ñoom ñaar bu ñu defee ay at ba doom commencé juddu ndaw si commencé biir bay ras waa ji commencé ñeme waa ji wallaay wallaay wallaay mais loo ko ñeme-ñeme ba génne ko ci yoon bi mu nekkoon mbaa nga bëgg a yàq yoonam amaana ëllëg yàlla mën na koo boole goo xamante ni la mu ne loolu lay wër mhm. ñoom ñaar ñu daje njaga mu jëlaat ndaw si tegaat ko ci raay buuxaat ko ndaw si dee paaral waaw oustaz tey jii ñu baax ñooñu ngay wax tey jii ku mel ni yow macha allah gis naa ma dam Mbaye ni mu nekkee taxoo ñuy wax parce que xam nga fi jamono hmm. tollu te xam nga li yàlla wax te yow mii xam li yàlla wax xam nga ni tey sa jabar bu amoon ay milliards nee nañu xorom warula koo jëndal sa kër est ce noonu la dëkk bi doxee léegi hmm. kon ñu baax ñooñu sax taxul ñuy wax mais ñu safaanoo ñu mel ne waa ji nga xamante ni nee nga dañuy wor te sax tànku wor la lal yow nga woo sa jabar muy liggéey comme ni ko Njaga waxee mu nekk fonction publique am position bu baax weer bu dee am na lu mu yaakaar nga ne ko bàyyi liggéey bi mu topp diine bàyyi liggéey bi nga dem ba ca biir fase ko takk beneen jabar boo xam ne cadre la indi ko ci sa biir kër waa ki nga fase fu mu jëm fonction publique bu ñu la xasee ba dàq ñoom dañ lay jëlaat nga toog di tontalaat yaag sa njaboot wuyu ma nag aja nag laa ta'ata lil maxluqi fi ah, ma'siyatil xaaliq bu toog ba nga ne oustaz njaga nga ne oustaz ba gi fi mu toll nii ah, laa ta'ata bul benn mindeef fii ma'siyatil xaaliq bi am mooy yàlla mi la bind yàlla nee na la kii mooy sa borom kër aja déggoo sànq ma ne la sëy neex na tàqali ko yàlla koy dogal sëy boo gis ñaara ko laal njaga boo gisee sëy di am passé yàlla ay nit dañuy toll foo xamante ni bu la leeree ni nit ki nga bëggoon démb sa xol dem na ba bu la wanee ginnaaw nga àttana jël jaas yi jam ko mm-hmm. ki nga xamante ni yàllaa leen boole woon démb boo dégg bu bu lu doo am sago am nga xool bu toll ni ndara jël ndox mu tàng di ko ko sotti mbaa nga dugg ci kenkaayri bi jënd asib yàlla ni bu ci naree am Euh, fa aw tasrixun bi ihsaanin ñaana leen te leen jàmm mhm. amaana boo demee sa yoonu bopp mu dem yoonu boppam gisanteetoo leen nammel dina doxaat ay at bu ngeen dajawaatee mbir yi mën naa beesaat mais problème bi mooy Adja doo xool ni lii rafet na li aada la aada li muy rafet rafet rafet diine ko gën a rafet téeméeri junni yoon di diine rafet rafet rafet moo ngor ñoo ànd bokk ak xarit yi mbokk yeeg xarit yi mën ngeen a dugg ci émission bi eh, eh. Eh, ngir dolli ñu ay xalaat ak i xel ci débat bi wala ku ko dund mën nga wootee ci 88 628 89 90 ngeen bés 2 88 la 628 28 90 89 90 ngeen bés 2 wala ngeen ànd ak ñun ci 88 628 28 28 ngeen bés 2 sànq da wax ni oustaz bala moo bu kii rek mu dugg ci ay aaya mu dugg ci ay aaya uh-huh. te affaire bi dafa gën a profond waaw xam nga lu tax mu gën a profond. Mm-hmm. da ngay ñëw sëy si ci kër gi di liggéey di wàcc yor sa sàkk. sa goro ak say ak say njëkke mm-hmm. ñooy tëb ni la. ni mm-hmm. ni sa jëkkër na arrêté liggéey bi toog ci kër gi di togg ko yàq. day jaay tubaab day def nangam ak sàngam du nekk sax décision jëkkër ji. du nekk ci xelam mais day dem ba waa kër gi dañ koy fitnaal. Mhm. dootuñu ko may dara. walaay walaay walaay jabar na toog sa jabar na toog du ko defee sagoom est-ce que loolu yàllaa ko wax. moo tax oustaz man bu buy wax aayam nangu naa aay yi yëpp yàlla moo ko wax nangu naa ko mais dañoo toll foo xamante ni wor gi dafa bari sa jëkkër da ngay liggéeyee wàcc mu ni la bu subaa bul liggéey. nga ne mhm. lu tax mun la tànnal liggéey bi wala man. waaw. bu dee man ko am fulla dama naan la tànn naa liggéey bi. loolu de Adja xam nga lu tax. c'est loolu xam nga lu tax fulla ah. la xam nga lu tax muy fulla hmm. yeewu rek yow yaa ngi dem di liggéeyi matale woo dara sa kër matale woo dara yére bu sa jabar sol sax mënoo ko jënd may liggéey di dem ak ñëw di indi ci sa biir kër di la mottali di la sagal ci sa kanamu nawle nga ne ma tànnal man wala liggéey bi te yow amaloo ma benn njariñ damay dem continuer ci sama liggéey di ci di ci sutur la bu boobaa nag bu yàlla taxawee ni damay bindal daw si bàkkaar ndax dafa dem di liggéey te yàlla rek tax loolu nag jar na seetaan jar na seetaan ah non seetaan jar na seetaan yàlla dégg nga état bi muy waxee bu fekkee ne ndaw si day dem pour dimbali njabootam kon jar na seetaat njaga est-ce que xam nga ni buñ doon topp diine jigéen du génn kër bay toog plateau alxuraan laa lay wax buñ doon topp diine wax xar na yàlla nee na sax leen fii buyutukun na ci seen kër yi wala tabarruj na ta tabarrujal jaahiliyatu ula bu leen mel ni jigéen ñu njëkk na jigéen ñu njëkk ña nañu meloon yàlla dem na bay wax ni eh, tere jigéen sax mu voix bu neex ngay wax du waxee voix bu neex yaa nisa annabi mm-hmm. lastunna ka ahadin min annisaay mm-hmm. inni taxaytunna fala taxdaana bil xawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun yàlla nee na am na góor ñu faible ñoo xam bu ñu déggee nga naan ça va ça va bien dañuy dañuy faatu yàllaa ko fi toog ah léegi yàlla uh-huh. mi nga xamante ni mooy buur bindu góor bindu jigéen teg ay ordam ni lii laa teg nga ni noo yàlla daal c'est-à-dire daal bu ma sañoon nii ngay demee ah ana góoru démb yooyu ak góoru tey yi dañoo yem